kon nooy wax ne asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci ndigalal maam Serigne Fall sëñ Cheikh Jëmb ni nii toog ak njabootu sëñ Tuubaa gi fi toog ak njabootu Serigne Fall gépp sëñ Cheikh Jëmb nee na mi ngi siyaare Cheikh Mamadou Bassirou Mbacké mi Cheikh Abdou Khadir Mbacké mi jëwri ne sëñ Mountakha yor kàddoom yor kàddu yoon moom ak mboolem sant Mbacké yi mu àndal di nuyu itam rakk ci boppam nga xam bokk Fall ak doomam yi ak taalibe yi nga xam ne ñëpp te nañ fi mu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp bu loolu jàllee nag mu ngi jotale ak cant yi ngërëm yu yëm Sëriñ Muntaxa Mbàkke Xaadimu ndax njëriñ ni bëggul looy muy ndigal mbokk loxoom boole loolu benn ko lool ndax keroog mu déggee ndigal day def mooy million la yëkkati yónnee ci Sëriñ Muntaxa ak cant ku ndigal am yi xam nga liggéey ba nga foofu ñaar fukki million yóbbu ko siyaaree ko gàttandu ko la ngir baax na la neex na la ak ñi bokkuñu tey kon na xam ne ma fa daje day mii daje daje bi mu gën boobu tey ko yéene ànd ak ku yaakaar seen tubaab mbaa yaakaar seen Fall mbaa jullit ne mbaa ko bëgg lu baax woo na ci ñëpp nag li koy li koy li ciy tax am nag mooy jëf wax ci may kenn dara dana la gaañ da moo lay jëriñ waaye waaye xeeju xeetu kese gi ñoom du jëriñ kenn dara kon liggéey bii jëf ji moo na fiy jëriñ xeeb dërëm maa nga xeeb sa ñaar maa mbaa sa korante gerte mbaa sa sa kilo suukar mbaa sa téeméer mbaa fukki dërëm bu ko xeeb kenn xeeb loxo bu ne rek na borom te sëñ Tuubaa lu bëggul ne am na ko waaye duñu ci may dara dañ ko jaay rek li mu koy jaay nag mooy bëggam gi defal ko suñu defee bëggam gi rek 100 de suñu 100 pour cent bëgg gi te bëgg sëñ Tuubaa nag moo na fi bàyyi leneen bàyyeetuñu fii sëñ Tuubaa dégg naa dong ci suba rek sëñ tëj rajo bi xam ko doon waaye woon rajo national tey wax nañ sëñ Fallou Mbacké kàddu yi mu waxoon ci diggam ak sëñ Tuubaa yi mu leen waxoon ci Jolof moo ko sëñ Moussa Mbacké ak sëñ Mor Roxaya Bousso ak na ko tey ci suba groupe rajo national dégg déggaan di bi rek fi ne ak bi nag mooy ak murid ak murid nag mooy yar ak teggin ak jub ci ndigal di bàyyi tere kon nan fa seen tënku ci ndigal yi dafa li muy digle di bàyyi li muy tere ndigal nag mooy li rek sëñ Tuubaa digal na noonu noo buñ ci nekkee nag xéwal yëpp dana wàcc si ne boo xoolee bi ñu ñëwee léegi yaakaar naa yi buñ ko seetloo kenn ku ne li la fekk ci xéwal ak li fi indi ci xéwal ma mu bàyyi ko ñi ñëw xamul nit ñi li ñu indi fu ko jëlee ñi fi nekk xamul li ñuy fekk fu mu bàyyi ko dara maa ngi dara maa ngi dara dara dara mboolem ko yaakaar Serigne Fall nga def seex mbaa ngi taalibe sa jëf tàbbi ci biir liggéey bi seex yëpp nag kenn desul nag ñii indi fi ay tonne ciment ñii indi fi ay limi xaalis ñii indi fi yéene àggale liggéey bi ñoom dong waaye kenn kenn man ki wut kon suñu baa ngi ñaan sama borom mi nga xam ne moo joxe ndigal li sëñ Tuubaa mu jox ko Cheikh Ibra mu dimbali ñu ci kàttanu poos ak kàttanu yaram ba ni ko sëñ Tuubaa bëgg na defe ko ne suñ baa ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp